waaw tey dañ fi ñëw euh, di tàmbali di sant waa ministère éducation ak waa comité 5 octobre bi ñu tàmmee bi ñu tànnee pour ñu ñëw def ak ñoom waxtaan bi euh, tey nag mu tombeek euh, li ñuy tuddee 5 octobre muy bis bi ñu jagleel jàngalekat yi ñu profité ci pour aussi nuyu leen sargal leen ndax ñëpp gis nañ ni bi fi mbas bi daanoo ñi nga xam ne ñoom mënuñu woon rëcc moo doon Euh, wa keur docteur moo doon militaires yeeg policiers yi moo doon préfet yeeg sous préfet yi mais moo doon aussi kat yi kon te nag fonctionnaire war nañ ko joxat gëddëm parce que bu jafé jafé amé ñom dañ nañ leen génn leen seen kër ñëw jàkkaarloog jafé jafe yi keneen ku ne mënoon nga def sa télétravail wala nga liggéeyee nenañ mais ñom mënuñu ko def donc occasion la pour ñu sargal leen maintenant loolu buñ ko défé nak ñu ne nañ leen waxtaanal ci ubbite l'école bi jëm ñu ne leen fukki fan mo des ci ubbite l'école bi te pour dem ci il faut ñu xamni Euh, war na am ñett ba ñeenti mbir yoo xam ne war nañ cee dut suñu baaraam bu njëkk bi mooy nu ñuy fexe ba parce que bala nga naan naam ne fa nu ñuy fexe ba suñuy doom ak suñu jàngalekat am wér-gu-yaram bi war bi war loolu nag li koy def mooy fexe ba suñuy lekkool am ndox am am gànnuwaay euh, am sécurité euh, ñu xam ne jàngale bi du krekese ak table banc ak jàngalekat ah jàngale bi aussi li ko wër la loolu bu amul doo mën a wér ba mën a def jàng bi war loolu mooy bu njëkk bi si topp ñu jàpp ni war nañoo fexe ba ci biir loolu ni ñuy jàngalee ñu xoolaat ko ba nga xam ni xale yi danañ am cahier yu doy am livre yu doy waaye jàngalekat yi danañ jàngale beneen façon tey jii yéen a ngi dégg ñu naan. Euh, xarañte yu bees yi nan la ñuy fexe ba dugal ko ci l'école bi mais ñun kat euh, en tant que COSYDEP société civile dañuy fàttali ni même numérique buñ ko war a dugal ci l'école bi war nañoo fexe ba mu dem laal ñi ko gën a soxla laal ñi nekk ci gox goxaat bi laal ñi nga xam ni amuñu waajur bu am courant wala bu am ay yenn jafe donc il faut pas que mu nekk offre boo xam ne dafay gën di sorantel euh, njàng ñi am ak ñi amul ñetteel bi nga xam ne teg nañ ko ci taal bi mooy évidemment que war nañoo fexe ba euh, ñooñu nga xam ne ñoom war a gunge xale yi ci bu ñu jaaxlee bu ñu tiitee bu ñu amee ay jafe-jafe li ñuy wax accompagnement psychosocial il faut que ñooñu aussi ñu am ko ci biir suñu l'école ñu xam ne l'école soxla na ay jàngalekat ak élèves waaye soxla na gardien soxla na femme de ménage soxla na it ay assistants sociaux ñi nga xam ne bu xale jaaxlee bu amee ay jafe-jafe euh, ñu mën leen a gunge et enfin ñu ne léegi nag nañ wax aussi ak askan bi parce que coolu euh, cooli askan bi ñoom ñoom moom l'école yi donc askan bi bu ñu jógee jël l'école bi def ko seen mbir ñëw li ñu am ñu dugal ko ci lekkool bi xale yi bu ñu jàngee ñu gën leen a nafar ci kër ga boobaa dana mën a am jàng boo xam ni euh, dana amal njariñ